asibillahi min asheytan rajim bisimillahi rahman rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu waa fédération Mounawirou Soudour ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax ñu si siyaar bi sëñ Fallou di ko ñaan suñu borom ba gudd fan bu ànd ak wér ci barke Cheikhul Khadim ginnaaw loolu rek eh, ñuy siyaar mbooloo mi ñëpp macha allah di ñëw ci liggéey bi nga xam ne moom la suñu yaay Ndey Fall indi ci biir liggéey bi mu nekk lu am am solo loo xam ne depuis ba ñu commencé ak léegi dañ ko ànd ñun da ko ànd ak ñun di ko def ci werte gam waaye di ko jaayante ngir sëriñ bi nga xam ne saa bu ñu xëyee ndekk yi nga xam ne moom la mbokku taale bi di ndekkee mu nekk ay wàllu laax moom saabu bu ñëwee da ciy toog yu sakkan a sakkan macha allah ñu séddale ko mbokku taalibe yi ñu koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiix ba mu koy gën a moon ci barke Cheikhul Khadim dañu yegg ko ànd moom may ko wér defal ko sutura ci barke alquran defal ko njabotam xana rek ñuy rafetlu liggéey bi bu baaxa baaxa baax a baax tamitam ñuy siyaare mbolam ñep di ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alaykum wa rahmatullahi taala wa mbokki sudur ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal jamm ci ndigalou serigne Fallou Ndiaye suñu ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ci bés bu tedd bu màgg bi nga xam ne ñu ko jàpp naa ren ji mooy troisième édition muy safar ren mu dëppoog le 10 août 2024 ñu ngi fii ci école bi nekk ci waañ bi ah, ñenn mbokk taali bi ne fele ci baas bi ñu ñuy ne ci bés bi fii nag mu mel ni um, suñu yaay ju tudd yaay Ndey Ndey faral chaque at mu jot rek muy defal ay xewal lu mel ni laax bi di ko fi indi moo waral jotaay bi ñu koy ñaanal suñu borom yokk ko ba mu yëg ko te bàyyil ñu ko fi mu gën fay yàgg lool te ànd ak wér barki Sëñ Tuubaa ñaanal ko lu mu mën ren rek yàlla mën yàlla mën lu ko lu ko raw déwén. mu mel ni bés bi nag ren moom dafa comme ni ñu ko waxee rek dafa ala daw mi mooy ren coïncidence bi dafa bari muy ren ji mooy téeméeri at bi Sëñ Tuubaa delloo demee Tuubaa ñu téga ci le 18 le 10 août 1895 ci le Serigne Touba départoon Mbacke Bari jëm ci liggéey ba ren ji mu dëppoo te mu nekkoon bëss samedi ren ji mu nék samedi le 10 août 1900 2000 euh, le 10 août 2024 mu melni lool mom euh, coïncidence la xar bax la ñu ngi ñaan suñu borom dëppaluñ ci ngërëmi Serigne Touba lepp luñ fi def rek ya suñ suñu borom nangu té ful ko wasaare ci mboolem aduna ndax Serigne Touba lim liggéey suñu borom fuko ko suñu borom fayé xejul ci aduna kon ñuy ñaan suñu borom ñëpp jëriñ ci barke alxuraan ak xasaayit yi yi ñaanal si ànday faal bu baax a baax liggéey bi am na solo lool yàlla na suñu boroom gën a mën loo barke Sëriñ Tuubaa kon xam naa bu ñuy wàcc foofu suñu kàddu rek te xam ne loolu moo nekkoon jotaay bi di sa wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu kenn ku sant di wax Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg loolu te wér di suñu am di xarifaar mu yàgg fi loolu te wér kuy bay si yoonu lislaam ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér lii dafa di ko def ak cant rek ak cant rek ak ay ñaan yu ñu ciy dolli daanaka lañ ciy def rek waaye li ma ta wax daanaka ñi fi jaar ñëpp wax nañ li ma ta wax xanaa di ñaanal suñu yaay ji rek yàlla guddal fanam wéral cërëm te lii mu yàgg di ko def ñu yàgg yàgg koo def yàgg ñu fe fekk yàlla na ko yàlla may jàmm may ko xéwal may ko sutura may ko yokk lool ak ak wér ci barke sidna ma ak mbooleem ak njabootam ak mbooleem ku nekk ci biir daayira yi rek ñu la koy ñaanal bu baax baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah Eh, mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jam eh, di wax ne bis bi ni yalla dimbalé ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ eggale ci alhamdulilahi rabil alamin eh, té lépp and ak ngeeneli suñu borom yalla defal ñu tawfiq ba li ñu man ren bu déwénee ku ci nekk rek la nga defan yalla may la xéewal ak féké ak tal ba nga man lu ko raw bu baaxa baaxa baax ñu ngi koy ñaanal mbolém julit yépp barké señ yalla yokku ñëpp ak sëñ Tuubaa di nag liggéey bi comme maire Fall ni mu ko daa defee lii moom du negguleen ndaxte euh, du leen dong la ko def kon dañuy ñaan suñu borom rek kattan gi gën a am wér gi gën a am ba lépp loo xam ne ku nekk sa yéene euh, ku nekk li nga yéene ci bis bi rek nga di ko def ndax ku sañan boo amee kattan gi luñ fiy def lu nekk nga def ko yow waaye nag daanu moo daju suuf kon nag xanaa ñu gën a sant yàlla rek jaru ñuy guddal sax sant yàlla tey ñaan xeewal rek daal ñaan yàlla may ñu màggal ak jàmm kenn bañ a màgg ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm itam barke sëñ Tuubaa ñu leen di siyaar yéen ñëpp barke sëñ Bàmba. aleykum wa rahmatullah jërëjëfati Serigne Touba Khadim Rasoul jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jaraw rek Serigne Saliou Mbacke moo mel ne maa ngi nuyu jëriñ sëñ Fallou Ndiaye président fédération bi di nuyu sunu ndey ju baax ji soxna Ndey Fall di ñaan Serigne Touba dimbali la nga gën koo mën nga koy fekkaay ay atiyat mu mel ne lii kàddu sant la rek ndax laa in shakartum laa zidannakum waat naa ni ku ma sant giñ naa ni naa la dolli la yàlla wax te Serigne tubaa ne kaay leen sant la ma yàlla mu mel ne saa su ne marché HLM 5 fédération bi booloo ñun ñëpp bokk ndey ak baay fas yéene sant sëñ tubaa mu mel ne saa su ne Serigne tubaa dina ko gën a mën loo ñu koy ànd ak sunu ndey ju baax ji dañuy ñaan Serigne tubaa bàyyi la fi nga gën a ànd ak ñun ñuy sant Serigne Touba di ko liggéeyal ak sunu jëwrin seigne fallu ndjay ak mbolom jëwrin yi nek ci fédération Munawirul Sudur kon wa marché HLM 5 kep ko xamne bokko go ci federation mi na nga ñew ñu and liggéeyal Serigne Touba ndax liggéeyal Serigne Touba moo nu may ndam fi ak fanu jëm kon ñu ngi sante bu baax tay ñaan federation mi sun borom gën ñoo boole xoli gëna bolo ci barke Cheikhul Khadim yalla na am jamm jeer ngeen